nuyu baax di leen siyaar soxna si ngeen di gis ne ñu mu ngi wéegi turu bu Ka Diallo moom nag depuis démb dafa réeroon kenn gisu ko moom nag étudiante la boo xam day jàng ci université Gaston Berger bu Ndar mi ngi dëkk fële ca Bambey moom daal ñu dañ koo rey ginnaaw bi ñu ko reyee nag dañ koo sànni ci benn village boo xam ne soriwut dara fii nga xam ne moo di UGB di université Gaston Berger bu Ndar di xabaar boo xam ne léegi lañ ko jot incha allah rabbi évolution yi kon daal moom dañ ko war a yi Seyna bu Ka Diallo moomu nekkoon nekkoon étudiant doon jàng ci université bu Ndar Gaston Berger dëkk fële ca Bambey dañ ko rey sànni ko ci benn village boo xam ne si ngeen di gis nañu mu ngi wéegi turu Seynabou Ka Diallo moom nag depuis dafa réeroon kenn gisu ko moom nag étudiante la boo xam ne day jàng ci université Gaston Berger bu Ndar mi ngi dëkk ca Bambey moom daal nañu dañ ko rey ginnaaw bi ñu ko reyee nag dañ koo sànni ci benn village boo xam ne soriwut dara fii nga xam ne moo di UGB di université Gaston Berger bu Ndar di xabaar boo xam ne léegi lañ ko jot incha allah rabbi daana ko topp ba xam lan mooy nekk évolution yi kon daal moom dañ koo rey Seynabou Bouka Diallo moomu nekkoon nekkoon étudiant doon jàng ci université bu Ndar Gaston Berger dëkk fële ca Bambey nañu dañ koo rey sànni ko ci benn village boo xam ne